filmal maane maane demal ci combat bi maane combat ba sori na la wàccel sa loxo na ngay filma baaxul Bébé Diène na leen wan ginnaaw moo xees écrit sumbe jun arbi ba maane xoolal waa Medina la ñu taal jëlal loolu kaay yi arbi eh ñu xeex kaay maane eh ñu xeex Fourrière a ngi koy dóor dinañ ci dóor nit mu daanu Fourrière ak xeex nañu xeex bu sax laa ilaha illallah maane loo def nii maane lu mu def nii faal ñaari mbër yaa nga maane ñaari mbër yaa nga ca faal eh eh Macky Sall nee na coronavirus ba añ na la ñuy def tey ci ay ndaje waaye daa mel ni loolu mu waxay ay dëgg mooy too gën a wóor waaw dina mat ak du mat bul jox sa loxo nu ngi koy dóor waaye Fourrière ak Bébé Diène combat bi du yomb ñaari ndaama ñaari bërekat laa ilaha illallah faal nuyu naa nuyu naa Modou Mané nuyu waa Leewtoo yëpp internet yi Leewtoo TV yi fu ngeen mën a ne leen di bëggee Fall mbaa sa son baa ngay baax eh mu bañ xalaat na kuñ ciy daan jëli bu lañ lay daani loolu laa yaakaar xalaat naa kuñ ciy daan DC teew Leewtoo calis mu ngoo ngu yónnee ay photo maa ngi koy nuyu waaye kiyaa kiyaa Jóob bu Babacar challenge sama série boobu nuyu naa ko bi ma bokk ak Modou Mané ki naa la waaye ana tuuti yaay Sarr ca Espagne ana Serigne Ndiour ca Espagne ana Asi Diagne ca Mauritanie Khadiros Ndiaye ca Allemagne ñu ngay doorante Abdoulaye Mbaye États-Unis eh jëkkati mu bañ ngañ sow taalibe Cheikh Béthio Thioune tey am laa ilaha illallah Bébé Diène jël na ko lee Fall Fall combat ngi arène nationale yëngu na tey fàq mu bañ mu delloo ko mu bañ da koo bëgg a door tànk e maa ngi lay bëggee Khadiros Ndiaye Abdoulaye Mbaye ngañ sow États-Unis nuyu naa ñëpp tuuti yaay Sarr Serigne Ndiour ñi ne à l'étranger coronavirus bu yàlla bu mu leen dal waaye fu waay mën a nekk yàlla bu mu ko dal ñi seen ñi ne senegal waaye coronavirus bu yem fi te dem yem fi te dem bul dalati kenn yàlla ne ñaan leen ma may leen ngeen sant ma dolli leen. ñaari mbër yaa nga ca ñaari mbër yaa nga ca Bébé Diène Fourrière waa Grand Yoff ak mbër. waa Cité millionnaire waa Arafat lépp ci Grand waa Medina Kusum Rëbës waaw waaw lépp ci Medina combat bi xalaatoon naa li am ci de xalaatoon naa mu ne combat bu ñu ngay ca de lum ko bëgg a def Bébé Diène lu mu bëgg a def cey bii combat cey bii combat ey bii combat maa xamoon ne lii du neex lu mu ko dina ko daan faal ñaari mbër yaa nga ca ñaari lu xew déedéet wóorul ñaari mbër yaa nga ca ah, ah am na client moom man kay noonu naa la combat bi du neex Fourrière day bëre waaye ndengeen ju sonal na Fourrière léegi dégguma la lool loolu laa xalaat kuy daanu daanu bu metti ngay daanu eh da koo xëcc ñëw sànni bëgg mu bañ Fourrière a ngi dóor Fourrière a ngi dóor Fourrière dina ko wër walla bañ na Fourrière mi ndekete yéen ab Fourrière la de kii ndekete Fourrière ab Grand Yoff baa ci moom de waaye yéen Fourrière mi boo xoolee ñoom ñaar ñaari ndaama lañu kii ware Medina Soumbédioune kii ware Grand Yoff mbooloo ca Grand Yoff Bébé ngay dóor ca faar cay làmb waaye mbokki sénégalais yi xam ngeen ne làmb ji waroon am suba te Baba Diaw ko dootul am muy sox gàmmu gi lu fa jaar moo tax jaam pexeem yàlla ak i billaay jaam day sabab lu waaye yàllaay dogal yàlla ñëw ak nañ ko nangu rek te yàlla tax addinaak looloo ànd billaay Abdoulaye Mbaye bëgg naa la ngañ soog mooman ke ca almaañ Saliou Khoule maa ngi lay nuyu borom Zik FM sama xarit boobu ñaari mbër yaa nga ca Saliou Khoule yàlla na sa jàmm yàgg seeri labado la yaama sëñ Saaliw borom xol mu nay sa ngooŋ nee naa ko Saaliw baaxal rek moo gën a wóor loolu dañ koy tere fourrière bébé jën la mu takkoon lépp tëkki na ko sànni bébé jën tëkki na la mu takkoon joxe min boo demee bay ñandu wala ngay tikki say galaaj di joxe jàppal ne moom la nga la nga taj metti na dafa décidé xoolal ndax ñëw na xoolal ñu ngay xeex wàccal maane maane ñu ngay xeex Fourier a ngi koy gëdd dóor mu daanu hey Bébé dóor na ko de dinañ dóor kenn mu daanu dóor na ko mu taanu Fourier a ngay daw wër nañu ko ndombo wala eh Bébé Diène ak dóor mu daanu laa ilaha illallah eh protestant ya protestant ya protestant ya protestant ya ñaari mbër yaa nga ca faal combat bu méttee ba wanante ginnaaw bàccante ay coup kim coono feeñ na coono feeñ na coono feeñ na hyperkit mu taanu laa hee bii combat ay waay bii combat waay lii metti di ñaari mbër yi seen combat bi métti na combat ngi combat ngi waaw Lamine waaw looloo am Fourrière daa mel ni tey loolu la xam Fourrière daa décidé tey ci combat bi parce que nag Bébé Diène ngay bëreel boo ne Bébé Diène la am dañan moo la man combat ngi nii sëgg nañu sëgg nañu faal coonoo dugg coonoo dugg faal Fourrière fu mu jëm Fourrière foo jëm caxabal na ko mu tëgg ca xabal mu bañ Bébé Diène am na adversaire tey Bébé Diène tey am nga adversaire xool boobu kal Fourrière mi bëre kat la de bébé yéen ak mi ee eh, wër na ko laa ilaha illallah ee eh, wër na ko laa ilaha illallah jël ba mu ko rëy na jël ba ko bébé jën oh, jël ba rëy waay bii jël rëy waay xool per kayre xoolal per kayre ak bébé waay waay lamba ngi faal Bébé Diène daanaan kulu fatin def na affaire xëcc mu ñëw mu tël ko mu dëpp Fourrière jógal démérité woo bëre nga ba tas waaye Fourrière jógal waaye bëre nga ba tas xolal per kay re nga yëkkati Fourrière lii rafet na ay doomam lañu ay doomam lañu ay doomam lañu ay doomam lañu ay doomam xool gaay yi ni ñu wàccee làmb ji jeex na ñëpp wàcc lii wóorul lii faal dara wóoru ci parce que nag làmb ji warul jeex rek ñu wàcc li amul du yoon waa lii du yoon lii du yoon c'est pas sûr